aussi en gros c'est ça. tey bu ñu la mënoon kan mooy Vito. waaw buñ si déjà présenté na xanaa ci dolliwaat tuuti. Vito c'est dafa ñëw parce que rappeur laa woon en même temps mu nekkoon rappeur voilà jëlee boobu te li may joué ci théâtre jaaru bi. ci la ci laa resté téye même tur boobu noonu ba léegi def naa benn long métrage avec jaaro euh, bi avec Canada jaaro bi la ak beneen boo xam ne suñu biir sa j'ai pas mal de sketch avec donc loolu c'est benn benn benn facette la ci sama liggéey mais bii nii mooy liggéey sama liggéey au quotidien ci laay xëy ci laay xëy ci laay doon sérigraphe en même temps infographe j'ai 38 ans doos kon nga jaar ba dugg ci théâtre bi waaw théâtre dafa am sama benn xarit boo xam ne moom laa lay wax mooy mooy can-can bi une fois dafa am euh, benn copain boo xam ne daf ma mës a ci ay bind scénario bi ko ne moom man rapport la pour moom war naa mën a bind ko non <laughs> loolu loolu mënu ma ko laaj euh, ay ay ay ay scène ay séquence te loolu ayuma ci am léegi ci laa ko ci laa ci laa moom lañ sama benn copain bi naan Madio Diop ci la ñuy ñëwaat nag ci cancan moom instant yooyu ñu ay livre doon na am notion ci loolu ci lañ ko ko wax mu ne moom est dina ko mën mais dina def ay recherche pour xool nu ñuy bindee ci loolu noonu ci la débuté ñu def leen euh, court métrage boobu mu jeex te par la suite ñu ñëw ñu def mu nekk mu nekk scénariste nekk leen maa ngi liggéey sama carrière. leen ngaa jàng def sa carrière. jaar na am na am na des am na des bas. def naa ko ah, ah, mu doon loo xamante ne affaire de bopp mu ah, nekk loolu bon nekkoon naa mais gañewu ma ci dara mais amu ci xaalis quoi mais amoon naa ci. plaisir pour def et def tamit xawoon naa dox parce que succès boobu noonu man xaar mu woon ne dinaa am succès bu toll xawoon naa ma yóbbu tuuti parce que attan mu woon loolu noonu carrément fii que ne nag ñi ko gis ñu bari daal di ne alors am naa peut-être ci domaine boobu. alors ci laa continuer lancer man ak moom parce que man moom ñu nekk tout le temps def euh, siitu jaaro bi yooyu ñu def mu ngi saa mu ngi egg par la suite ci la def euh, Ramanaana As sama cheminement ak moom foofu j'ai tout le temps joué avec amoo ci xaalis ça veut dire xaalis nga si doon ut wala waaw instant yi ñu ciy dugg nañ ñun ñëpp <laughs> xaaruñu ci woon xaalis xaaruñu ci woon tamit succès maanaam challenge lañ ci liggéey maanaam dañoo am nañ ba créé nañ benn scénario neex na ñu ne pourquoi pas ñu war a faire étude essayer de voir quoi qu'est-ce que ça va. ñaar maa ngi ah ci succès lañ ci doon xaar. non non nii non ñëw am ñu ci am ñoo xam ne am ñoo xam ne ñu ñu garder succès bi. loolu tamit may na tey opportunité yu bari ñoo xam ne yéen a ngi ah. leen di gis ci télé. may na ci opportunité ñoo xamante ne nii tey voyagé nañ ci may na ci ñoo xam ne tamit opportunité tey ñu nekk ci milieu boobu noonu ba am yan difficulté nga rencontré ci sa acteur waaw bari naa ay parce que joué naa pas mal ko en global euh, loolu rek dafa métti quoi dañ ko joué di doon cool nga joxe lépp loolu noonu réussir. ñu war la fay jox la avance après le reste boo gis neexul donc maanaam péripéties yooyu noonu daal laa ci am ay jafe-jafe mais li may liggéey euh, dañ ko def muy carrière acteur boobu man ko def un jour dama koy damay damay jouer par plaisir lu ma neex lu ma neex la quoi lu ma bëgg la aussi leneen lu ma ci am dama jëli parce da ci métier bii nii ci laa xamee lépp lu yàlla ko lépp ci métier bi bi nga waaw parce que avant may de sérigraphie daan naa defar ay t-shirt sama kër sama kër laa daan defar ay t-shirt sama waa kër kenn ku nekk di yéreem di la faisais à la main un jour sama bàpp mais lii est-ce que doo dem manière professionnelle boo xamante ne mën a def pour mu pour mu mën la pour nga pour nga professionnel. Ablaye si woon bagage yi nekkoon si woon. non wax nga dëgg de am na kenn ku nekk xamante ne muy sekk. ma dem ko loolu moom la koy et que avant ma koy ñëw tamit dama amoon beneen ambition. waroon a waroon a yóbbaale métier yi. su ko a baax wax ma dem jàng fa métier pendant trois ans fekk fa ay xale yoo xam ne samay patron lañ ah. mais dama ñëw wàcc ñoom tamit au fur et ñuy dem ñu def ma tamit grand frère ñu woon ah, ma lépp yàlla dimbali ma si fan nga jaar ba créé atelier bi nga nekk waaw bi may jógee ci atelier bi ma nekkal nga xam ne moom laa defal formation bi ñuy ñëw fii sama grand frère ba léegi waaw ñu ñëwoon doo fii ñu woon sax ñoo fi nekkoon ak benn table d'ailleurs table bi sax maa ko xam ne yàggul dara ba accidentellement <laughs> kese moo fi nekkoon eh, ñu commencé bu ñu xëyee dañuy xëy ñu toog deux heures changé nañ du am dañuy dañuy bàyyi dañuy naan rek bàyyi bu sëñ bi rek ñu nekk dañuy gerte kër bu ñu wàññi lekk ko maanaam muy añ dem di ñu ba euh, dem ba commencé nag di jënd ci suñu rek di ko fa xaar lu ñu dajale rek fayoo ko ba dem di liggéeyi def si passage restaurant yi wala affaire yooyu bi ñu def am am baax na premier marché bi ñu dëkk am am ak waa Sabora loolu nag laaj délai si jox sa papa su doon agréé la am amuloo ko gëraat ba nekk donc ñu expliqué rek waa suite ma bañ a beneen marché ak Cheikh Yérim Seck mu ñëwoon loolu tamit sax moom bu tuuree woon si jël lépp rek xam ko ci matériel moom daal laa commencé di ko liggéey nga xamante ni ak ay ay démarcheurs yu total ak ay démarcheurs yu Orbia ay waa Orange ñooñu ñoo parce que liggéey bu set rek mu nekk ba ci ma liggéey seen démarcheurs yooyu nag bu ma ci affecté atelier bi yow kese yaa ko géré wala dafa am ay employé. am naa ay am naa am naa am naa ñaar ñoo xam ne. waaw waaw formé naa leen ba nga xam ne mën nañ seen kii ñu ngi ci yeneen. waaw waaw waaw jàpp nañ ko topp loolu yeneen en plus de ça am naa fi keneen ba noonu tam muy moom indi na eh, sama emploi de formation macha allah. waaw eh, Ablaye. yooyu laa fi nekk mais nag mu ay côté moom yenn côté moom ak yenn enseigne yu mag sama frère bi am ngi gis ne ndaw yi ñu ngi fi bàyyi seen liggéey di leen bu dugg ci gaay yow la nga xam ci yow waaw xam nga euh, gis ne euh, bàyyi fi sa liggéey dem Europe pour man du dara bu ñu ko doon risque parce que yow bàyyi nga fi loo xam ne commencé nga de zéro bañ naan benn ñaar nga bàyyi ko fi dem koo xamante ne nii tey rek boo dund un dem bi rek risque la mun nga ko périr mun nga fa mun nga fa nga yegg fa xamoo réalité dëkk bi ni muy doxee xamoo ba xam duñ fa am liggéey xamoo ba xam duñ fa tekki. maanaam ci njort rek nga dem man je préfère pas nit jël ay gaal di tudd ci danger pour dem kër pour xalaat ne c'est l'Eldorado man gëwma loolu li ma gëm mooy fépp fu ma mën di nekk mën nga faa nekk boo amee opportunité dem kër loolu opportunité la boo demee foofu noonu nga liggéey nga liggéey quoi garaawul te bari na ñu fa nekk ñoo xam ne def na fa 16 ans 17 ans voire même 20 ans amuñu fa suñu am na ñoo xam ne nii defuñu fa 3 ans am nañ lépp kon donc wërsëg la wërsëg foo nekk mën na nekk Somalie nga nekk Afrique du Sud mën nga nekk sa wërsëg nga yóbbaale donc su ma dem nga mën a jox pour ñu yi ma mën a joxe mooy euh, bi ñu juddoo bi ñu juddoo ba léegi liggéey mi nga am say maam dañ daan liggéey say baay di liggéey say papa di liggéey yow ngay liggéey kon liggéey bu jeex. ñi doon suudee ba léegi ñu ngi suudee di ko def ci ay kër ñi menuisier yi ba léegi ñu ngi defar ay lal di yi ba léegi ñu ngi tabax maanaam liggéey ngi fi li ma leen di conseillé moom mooy jàngi nañ jàngi métier bu ñu jàngul métier nañu jàngi maanaam boo demee jàngi am xam-xam mën nga am lépp ci àdduna bu dee école nga jàng ça te permet de calculer di nga fexe ba kenn du la nax sa xaalisu bopp doo ne kenn kaay liiral ko wala kaay jàngal ko wala kaay calculer ko say secteur moom la waaw bu dee alxuraan nga jàng même boo jàngalewul oustaz mën nga jàngale xam-xam ci biir école la mën nga jàngale métier tamit boo ko yoree tamit métier lañ naan te boo déggee naan nit ki fi muy gënee nit loolu ñu sang ñu ko simbi loolu métier la parce que métier boo ko xasee ko mën booy voyagé ji doo ko paasal booy tëdd dina kenn du ko wax ci xam-xam jàng métier te liggéey leneen ñu leen fi fekk moo xam ne seen liggéey ngi si feewu émission bi la moo nekkoon kàddu yu mujj sama kàddu yu mujj mooy gëmee ne man damay tekki comme soo nit bu gëmee ne dafay tekki day tekki bu gëmee ne day tekki may dara day tekki may bu gëmee tekki Europe day tekki Europe mais foo mën di nekk yóbbaale fa ngëm-ngëm léegi nag ngëm-ngëm bi dafa am ñaar maanaam la nga gëm ngëm-ngëm ngëm-ngëm ci nekk muy liggéey wala ci loolu rek nga ci boole bu def sa ngëm-ngëm am na leneen muy ñaan a parce que nekk ne la gars yi ñu la liggéey bu leen xaar man am naa ay diplôme ñu ngi fële ma ma dem ñu ci sama yëfi bopp tey mu ne yàlla suñu borom dimbali na am naa ci dëgg ne sama ngëm-ngëm boobu noonu na fi nekk ba pare ñu loolu rek nga leen di gërëm yéen di leen sant bi ngeen ma jox mu mën wax ci li nga xam ne mooy sama xalaat bu dee tamit bu bu bu bu rafet yàlla mu ciy dimbali rek moom wax bu dee tamit. Euh, ba sama mbokki internet yi yéen a ko déggoo ñu ngi woon ci seen émission tekki fii avec Seynabou Diop maa ngi leen bàyyi ba beneen yoon si yeneen émission n'oublie pas d'abonner sur notre chaîne